ci daan yi nga xam ne daal dinañu koy teg ay fan yi ñu génn ca kaw kii di oustaz Modou Fall waa organisation wattu suñu pas-pas amaloon ko daal di xam ne ne désormais moom oustaz bi amatul droit di animer lépp la nga xam ne dafay laale ak wàllub conférence wala daayra ngir ne dafa amoon benn comportement bi irrespectueux gannaaw ba ñu jugee ca gàmmu kii di Aziz Ndiaye bi moom nag nee na yooyu lay daan dafay nekk la nga xam ne sax du ci daal di bàyyi xel ndax amul kenn ci njabootu Seydi Hadji Malick ba nga xam ne daal dina ci axtu kàddu li nga xam ne daal def na ko ñooñee rek ñoo waroon mën a génn ne ko lii du yoon mu daal di génn jéggalu sénégalais yi mais nag du kenn ka nga xam ne daal dina ci làmboo ay nit lañu rek ne dañoo toog gis ne lii rek moo tax ñu daal di jëf li ni mel kon bàyyiwu leen xel ñoom nag seen daan yooyee nga xam ne teg nañu ko du nekk la nga xam ne daf koy appliqué ndax ba tey ji am na ña xam ne ñu ngi koy woo ci ay conférence mu leen ni animel kon sax day mel ne loolee am na aussi yenn ci ay taalibe yi nga xam ni bàyyiwuñu ci xel mu daal xam le nag ne gannaaw ba mu demee sax ca bi nga xam ne amoon na foofee ci Europe daal di fay daje ak kii di Adamo li nga xam ne moo ko waroon mooy mu daal di koy nuyu mais yëgul woon ne Adamo dina ko fa daal di fekk mais nag sénégalais yu bëri la ñu doon xaar mooy bu ko fekkee mu nekk fa naan dafay jëflante ak moom di nuy ñii di ko topp loolee du waree fam ndax mbokku taalibeem la ci yoonu Tijaan bi kon nag li mu mën daal mooy daal di koy fekk foofee nuyu ko kanta li nga xam ne dox na ca digganteem ak kii di Aïssatou Diop Fall nag moom oustaz Modou Fall nee du tontu ni kenn xamu ko c'est parce que moom tooñul waxul kii di Aïssatou Diop Fall moo ko njëkk attaqué la mu def rek mooy daal di riposte li nga xam ne nag xewoon na ci kër kii di Aziz Ndiaye ci gàmmu gi bu fekkoon ne nit ñi dañoo ñëw daal di koy waxtaanee ak moom ci dal dina génn daal di jéggalu xam ne loolee du nekk la nga xam ne dinañu ko daal di defaat mais nag bépp conférence ba nga xam ne teew na fa soxnaam si bu ko fekkee dina ko daal di présenté ca kanamu sénégalais yépp mais nag du nekk ka nga xam ne daal dafay nekk fii naan dafay a nga xam ni du ko appliqué toujours ci ay kàddoom nag mu daal di xam le ne moom peu importe lan la mënti jàppal nit yaayam wala sëriñam bii di sëriñ Moustapha mu sëriñ Abdou ñoom ñaax ñooñee bu ñu génnee wax rek daf koy daal di bàyyi toujours ci kàddu yi nga xam ne yëkkati na ko mu daal di ñëw ci relation bi nga xam ni sekk na ko ak kii di Aziz Ndiaye daal xam le ne nag ñi nga xam ne dañoo jàpp ne dafa lalu ci wàllub xaalis wala moom dafay sibooru nit c'est parce que xamuñu defaral c'est parce que nag kii di Aziz Ndiaye dafa nekk xaritam nekk wóllëreem nekk ki nga xam ne moo ko njëkk a yóbbu mu dem ziyaari ji yeneen bi gannaaw ba mu daan toog di wax ci moom loolee nag la ko jàppee ba tey ji mais nekkul alal comme ni nga xamee ni nit ñi noonee la ñu ko njoxtee moom Aziz Ndiaye mu daal di mel ne nag kuy weddi li nga xam ne ñu ngi koy xamle fan yi laale ak divorce am ca digganteem ak kii di Miss Ndiaye dal di xamle ne daal ñi nga xam ne dañuy toog di la fenal di yàq sa der da nga leen bàyyi ndax suñu borom bi daal dafay jël ñoom seeni tax kon jarul ngay génn naan da ngay euh, jéem a teggi tuuma lam ca tegtal nag euh, mooy nit ñi daal bu fekkee ñu ngay wax moom kii di Aziz Ndiaye mu ngay woyal focus ci liggéeyam remariage kii di Mario Mbaye nekkul dëgg comme ni ko Adamo annoncé woon xale bu jigéen ba mu waxoon ne ñoom ñaar dañuy génn di Amina mi nga xam ne moo nekkoon ci série famille sénégalaise moom moomee daal dinay devenir madame Mbaye mais pas ci Mario beneen xale bu góor ba nga xam mu ngay wuyoo ci turu Gilo Mbaye internet bi Adamo nag euh, mu mel ne la mu waxoon nekkul dëgg ne oto bi nga xam ne kii di euh, Amina yoroon na ko Mario mbay moo ko ko daal di may ndax daf kaa bëgg takk moo ko aayewaale aussi li nga xam ne moom moo nekk fam série famille sénégalaise bi ngeex moo daal di ciy génn mais nag euh, mel na ne loolee yëpp dafa nekkoon ay information ya nga xam ne daal daf ko doon wax noonu rek ngir daal di xumbal ndax xam ne moo ko takk sax nekk na nit ka nga xam ne ñu bëri ràññeewuñu ko ci showbiz sénégalaise bi Aïda Samb ñu ngi koy jàll nag di ko ñaan ñaanal rakkam bii di Awa Samb yàlla na ko yàlla yërëm te xaaree ko aljanaay si mu nekk ab information ba nga xam ne nag moom waykat bi moo ko daal di fësal niki démb ci internet bi daal di xam ne ne sax moo nekk mauvaise nouvelle bi nga xam ne moom moo daal di tax mu daal di repousser la sorti de son clip euh, toppandoo bi nga xam ne niki démb sénégalais yi waroon nañu ci jot Bass faatu Fatou Ndiaye seen relation amoureuse nit ñi di ko ngawti ngawtee boor bu nekk moom nag la mu wax mooy bu fekkee sénégalais yi bëgg nañu daal mu jël booy bi dina ko daal di def euh, kanta kii di faatu Ndiaye moom mu ngay wéyal di def ay vidéo am ci réseaux sociaux yi di ko posté artuwu ci benn yoon kàddu mais daal li nga xam ne daal euh, gis nañu ko mooy vidéo ak photo yi nga xam ne apparaître nañu ci ñoom ñaar ensemble mu ngay lëmbee internet bi mais selon beaucoup d'internautes dafa nekk ab clip ba nga xam ne dañoo nekk di ko ne jamono yuñ toll nii ñoo ngi leen di jaajëfal mbokk yi ci teewlu bi ak déglu bi di leen jox dig daje beneen yoon incha allah ci seen beneen numéro d'actualité people